saddi lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraay assalaamu aleykum taala wa barakaatuhu mbokki julli li mbokki taalibe yi gannaaw ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuuba radiallahu anhu wa allah bi barakaatihi di ñaanal baax Sëriñ Muntaxa ayyadahu llah wa nasara wa aafisa waraa waaye itam di ko ñaanal njabootu sëñ tubaa gépp ak jullit yëpp fu ñu mën a nekk mu mel ni ñu ngi ci wàccaayu bis bu tedd boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba génne woon fee ca Mbàkke Baari dem léggéey li boromam subhaanahu woo taala mu mel ni saa suñ tollee ci fan yi nag daañu baaxoo di sulliwaat ak jeqiwaat ak gëstuwaat njàngalem Serigne Touba. moo xam ci jëmmam la wala ci mbindam la wala ci dëkk yi mu sanc baay mu sanculu wala mag ñi mu defar la bañ làq ngërëmam ñu tudde ko dix-huit kàngam dix-huit safar ci tele bii di Assalaamy TV ak Assalaamy FM 99 point 0 ci njëlal Serigne Fallou Gala Sylla kon tey ñu teew fii ci Darou Khoudoss fas yéene ànd ak docteur Xarim Sylla ñu di ko ziare bu baax te di ko nuyu te di ko ñaanal wér gi ak gudd fan ci barke Cheikhul Khadim ñu jël nag kenn ci kàngam yi te mooy kàngam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon taawu woon liggéeyu sëñ tubaab yi muy Serigne Medina Silla moom la ñu ne yéenee waxtaani kan mooy Serigne Medina Silla aw askanam ak itam ab liggéeyam ci Serigne Touba jubluwaay bi rek mooy jàngataat mag ñi fàttali ko ñi ñi leen xamoon waaye tam jàngal ko ñi leen xamut bañ xam niñ ànde woon ak Serigne Touba waaye itam xamaale seeni askan fu ñu bokk kon loolu moom ñu taxateew fii tey di ñaan yàlla lépp luñ fi jëlee ci ay kàddu ñu mën koo jariñoo ci barke Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah ci dalal leen ci kër gi ci biir waxtaan yi nga xam ne dangeen koy waajal di ko gàttandoo màggal gi muy bis bu màgg bi di am mbégte itam nag ci tànn gi nga xam ne moom ngeen tànn kenn ci góor yàlla yi nga xam ne am nañ taxawaay bu am solo ci biir liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii hmm. mu di sëriñ Masamba Xari Sill ñu gën koo xam ci sëriñ Mirina Sill mu bokk ci askan wu mag ci askanu eh, doomu daara wala li ñuy gën a siiwe doomu soxna yi eh, nekkan ci muy askanu Tayba askanu ba di askan woo xam ne ci jàng ak jàngale ak liggéey lañu leen xamee ñu ràññiku lool nag ci jàngale alquran waaye am ci seen biir ñoo xam ne it dañ caa boole woon jàngale xam-xam gannaaw boo xamee ne jaar nañ ci ay daara yu bari bi noppee seen alquran ba jàng lu baree bari wala jàng liñ baaxoo jàng ak jàngale ci biir réew mi ci xeeti xam-xam yépp rawatina xam-xamu diine e muy askanu Tayba kon askanu yaatu woo xam ne sañci nañ ci biir bawal lu mat ñaar fukki dëkk yoo xam ne dara taxul ñu sañc ko lu dul jàng ak jàngale ak liggéey ndax comme niñ ko baaxoo defee rek ni ko askan eh, yi yëngutu ci loolu baaxoo dese liy waral seeni sañc ak seeni dëkk di bari mooy eh, ku ci dem rek ba sanc dëkk boo demee ba am njaboot da cay am ñoo xam ne danga leen di ber ñoom it ñu digal leen ñu sañc seen dëkku bopp mm. eh, ndax daara ja day dema dema dema dem ba xëy na bari waaye dongo ya tax na e, mu soxlawoo woo yàq li soxlawoo yaatal loolu moo waral ñaare ñuy sañc ay dëkk yu bari waaye nag yitte itam nag laltaay ko yitte yi laltaay ko fu ñu dem ba gis ne xaw na xat ni ko lislaam santaane ci lañ fa bëgg ci wàllu liggéey bu ànd ak jàngale barab ba xat na dañuy dem sañcaat fu gën a yaatu tuuti pour ñu mën faa e, def activités yi ñu bëgg def yépp ci muy liggéey pour mën a sukkandiku seen bopp waaye eh, eh, boole fay di jàngale ak di yare eh, bokk na ci jàngale mi ak yare itam xam nga ku xumb lool lool léeg-léeg du neex a jàngale du neex a yare moo waral léeg-léeg buñ demee ba ña gàddaay fekk si leen bari ba mu xumb ñu maanaam ber daara ja fi barab mm-hmm. léeg-léeg nag daara jooju mooy dem ba mujj sax nekk ab dëkk hmm. kon loolu askanu ba eh, sañ ci kon lu man ñaar fukki dëkk ci Bawal hmm. ci frontière Bawal sax lañuy wax ak Kajoor hmm. moo tax sax ñu bari dañuy jàpp ne ci biir mbaakol la waaye dafa sës rëkk rëkk ci Mbakol eh, ndax mooy eh, frontière Bawal ak mbaakol loolu foofu la Taïba yooyu féetewoo sëriñ mbiri na nag bokk ci Taïba gi ñuy wax ba Dakar nga xam ni way juróom sëriñ Madou Ndoumbe Maar de ku ñu xam mi ko xam ne moom ak Maam Mor Anta Sali ñoo jamonoonte woon ñoo bokka nit gannaaw buñ jàngee xam-xam alxuraanul karim ci seen ëtti way jur ñoo gàddaayandoo daje eh, deqale ci sëñ kokki sàmba Anta Ceebo mi nga xam ne moom la Cheikh al Xadim duppee sëriñ moom la moom la Maam Mor Anta Sali moom lañ duppee sëriñ Masamba mii tey moo leen jàngal ñoom ñaar ba ñu jàng nag uh, li ëpp ci liñ baaxoo jàng ci réew mi yépp ci deqale gannaaw bi nag ñu laxasaayuwaat dem Saalum fekki sëriñ Ahmadou Bamba Sall mm-hmm. foofa lañ bokk maanaam yéene naa leen daal barke bi nekk ci man wàcc ci yéen hmm. loolu nag li ngeen ma ciy dimbalee mooy kenn ku ci nekk bu delloo bu ko yàlla joxee doom na ma sédde kenn ci ay njabootam hmm. danaa ñaan sunu borom subhaanahu barke bi ngeen fi doon dabu si ak xam-xam bi yàlla wàcce ko ci ñooñi hmm. ngeen ma am yéene sédde ma ko loolu muy kóllëre gu gu gu gu yaatu goo xam ne seq nañ ko ñoom ñaari ñooñu di sëriñ Taïba Dakar Madu nu Maar ak Maamoor Anta Sëli loola waral euh, ba ñu dellusee sax mu jël ab jigéenam bu mbokkal ndey ak baay moom suñ Mor Anta Sëli may ko ko muy sonaas Asta Mbàkke ñu wëlërante lool nag bi nga xamee ne tey ba Dakar sëñ miir na sañc na dëkku boppam muy ba Dakar Eh, sëriñ sëriñ Massamba eh, sëriñ sëriñ eh, Madou Ndoumé Mar dellu sëriñ ba mu sañ ci dëkku boppam muy ba daqaar googu ngay dégg mhm. sëriñ Mor Anta Sali noor bu jot comme ni ko sëriñ daara yi baaxoo def day ànd ak dongo yi ñëw noor si ba daqaar mhm. gane si maam Madou Ndoumé Mar ba am na ci ay doomam sax muy soxna tum kumba tey ba nga xam ne eh, moom ak sëñ Balla Coro mm. ñoo bokk ndey mm. way jur wu jigéen eh, soxna tumba kumba tey ba moomu mm. eh, tey ba daqaar la ganee àdduna moo tax di ko wax sax kumba tey ba ndax mel na ni wax nañ ne tur sax Mariama la waaye soxna kumba tey ba lañ koy wax ngir gane gum gane tey ba Dakar waxtu wooyu itam daana ànd ak sëriñ bi booba sëriñ bi eh, di war a tolloo ak si mbiri ne mi ñu war a waxtaane ay at mhm. kon foofa la eh, sëriñ mbiri na fasante woon coloré ak sëriñ bi comme ni ko seen ñaari wayjur seqe woon mhm. xam ngeen ne ci biir coloré googu itam moo waral sëriñ bi bi mu eh, seex madunu sëñ Maam Mor mhm. bi mu wàccee ab liggéey lu jiitu muy génn àdduna mhm. sëñ Tayba Dakar ma dundu maar la batale woon ne na ko ko jullee mhm. na taxawu gannaawam itam lépp mhm. bu yàlla dogalee mu jiitu ko eh, njëkk ko wàcc ab liggéey loolu la batale woon loolu moo waral bi mu génnee àdduna eh, moom moo ko jullee eh, moo fa taxaw itam ba ba ba fan yi dëj ba yëpp jàll Mm-hmm. ànd ak njaboot gi ba la ca lislaam santaane lépp ci gannaaw moo taxawee ñu def ko mm-hmm. kooku nag mooy way juru sëriñ e, Mirina Syll mi sëriñ Mirina mooy ñaareelu doomam mm-hmm. sëriñ Tayba Ndaw e, Masamba Asta mi nga xam ne soxna Asta Mbàkke moomu di jigéenu Maam Warata Sëll mooy moo ko jur mooy ab taawam e, muy koo xam ne mooy fa tabarakallahu ku ku jaxasoo nag ak waa Mbàkke la ndax bu way juróom nekkee rekk Sëñ Mor Anta Sali it mhm. Sëñ Anta Sali da ko jox doomam mu awaloo ko mhm. ba am ca sëriñ Maseer Sill sëriñ eh, Mor Asta ak sëriñ Sill Ndula mhm. sëñ Maseer Asta yi dellu siwaat kër nijaayam sëriñ Tuubaa ñu jox ko soxna Marema Kunta rek mi bokk ak Seex Moodu Faadal ndey ak baay xam nga mu am ci sëriñ Matar Sill mi mm. nekk ci gaar bu ndaw ak soxna mbenn Sill mi sëriñ Cheikh Kende Fatma yoroon mm. eh, kooku mooy taawu suñ mo eh, sëñ Madu Ndumé Maar mm. rakkam nag sëriñ miiri na nag eh, moom way juram mooy soxna xari jaxate soxna xari jaxate nag sëriñ kokki ma sàmba ante ceebo moom sëriñ maxtaar Ndumé mi sañcan kokki mooy way juram am na ñu wax sax ne eh, mooy taawu sëriñ koki am na ñu wax Modou Faa Xujja hmm. waaye eh, am na ñu wax ne sëriñ ma Masamba Anta Ceebo hmm. mi nga xam ne mooy jur soxna Xari Jaxate way juru si mbir na mooy taawu Maam Matar Numbe hmm. alakule alin doomi Maam Matar Numbe la daal si mag Maam Matar Numbe eh, moo sañ ci kokki taxawal fa deuxième université bi am ci pays wolof mm-hmm. gannaaw université piir moo njëkk am ci lislaam mm-hmm. lu ñuy mën a jox atteb université waaye ba ca toppaat nag ci bu gën a rëy ëpp ñu ma formé ci ay cadre yu fa jànge mooy université bu kokki bu Mamata Ndoumbe mm-hmm. Mamata Ndoumbe moomu kon eh, euh, Masamba Faaxuja doomam moo jur Xari Jaxate mu jur sëriñ mbir na sill am ko ak sëriñ eh, Madu Ndoumbe Maar Mm-hmm. sëriñ mbir ne nag eh, mi ngi jàngee alquran ci way juram ndax sëñ ma dundume maarit bi mu jógee eh, mbamba sàll gannaaw bu jaaree deqale bi mu ñëwee moom it dafa taxawal foofa daaray alquran ak daaray xam-xam ju mag yoo xam ne mboolem doomi soxna yi nga xam ne ñoo nekkan ci tund wi mm-hmm. moo xam ci biir Tayba gi mu bokk muy Tayba yeneen yi ci des mm-hmm. wala ñi mu dëkkal ci ñi sant ture muy càq mi ak lappe ak ñu sant jaxate ak ñu sant silla ci diggante kër ma ñaaw ak euh, boye ak euh, mboolem ñi sant silla ci gox boobu yooyu yëpp seeni ñu baree bari seeni njaboot ci daara yi suñ mbaru nume lañ doon jàngee muy daara yu mag a mag joo xam ne wax nañ ne sax mooy ji gën a rëy nag ci bawal Mm-hmm. Eh, sëriñ Miri nag kon ci daara jooju muy daara yi way juram ci la jànge alxuraan ba mokkal ko mm-hmm. waaye ci la jànge mboolem xeeti xam-xam yépp itam mm-hmm. yàlla dogal itam comme way juróom comme maamorante sëriñ ñoom yépp biñ demee boo war a jël tarixa tarixa xaadiriya lañ jëlan ci ci Cheikh Sidiya eh, sëriñ Madou Ndoumé moom la jëlan eh, jox koy doom sëriñ Miri sëñ mbir yi it eh, mu demee ba war a yeeslu comme niñ ko baaxoo defee eh, gannaaw way juróom mm-hmm. eh, mu dellu dem gànnaar jaayantewaat ak seex Sidiya mu yeesalaat ko mm-hmm. diir bu gàtt sax mu seexal ko mu nekk seexu xaadir bu mag mm-hmm. boo xam ne da joxe joxe wirdu xaadir di tarbiye ci xaadir ya bi mu sañcee miir na sax dafa aman daaray tarbiya daara yi tarbiya joo xam ne eh, mbooloo mu baree bari ñoo fa nekkan dakk mhm. laxasaay xasaay comme niñ koy defee ci muridiya ndax mhm. eh, muridiya ak xaadiri yi ñoo ñoo bokkule loolu bi mhm. tarbiya wul daara laxasaay la boole ko ak daara yi xam-xam ji nag daara yi xam-xam joo xam ne mm, maanaa eh, rëyaay ba jéggi na dayoom maanaa comme ni mën nañoo xam moo doon daara yi way juróom woowee di sëriñ Madou Ndoumé Mar muy daara ji nekkantey ba daqaar mm-hmm. mën nañoo wax ne mooy moo mooy mooy ki ko donn mm-hmm. mën nañoo wax ne dafa toxoo tey ba daqaar gannaaw bu Serigne Mor Anta Sali mm-hmm. gannaaw bu Serigne Madou Ndoumé Mar génnee àdduna et ñëw Mirina parce que si Mirina e, dafa sañ ci ab dëkku boppam ci trois kilomètres diggam ak ak dëkku baayam e, muy tey ba Dakar ci ndigalul baayam nag ci jamonoy baayam mhm. comme ni ko sëñ ba Ndaw magam mi ma doon waxee moom it sañ ci beneen dëkk boo xam ne moom it trois kilomètres la ak Tayba Dakar eh, sëñ ma Samba Asta mhm. muy ba Ndaw mbiri mhm. ne rek dëkk dëkk euh, maanaam nekk barab boo xam ne eh, barabu xam-xam bu yaatu la boo xam ne lu bari ci askanu Mbakke eh, ak askanu doomi soxna yëpp fa ñu doon jànge E, yàlla dogal e, sëñ mbiri na ca loola la nekk ba bi sëriñ bi ñibbisee nag e, ci géej gi ba jóge fi dem gànnaar lépp sëñ mbiri na mi ngi continuer moom ci xaadiriyaam bi bi jógee nag gànnaar ba ñëw ci nag mm-hmm. ca la doog fekk askanu Tayba yépp comme mooy moo fi mooy kilifa gi yi nga xam ni mooy moo fi moo fi gën a mag hmm. ëpp fi dayo hmm. eh, mën nañoo wax ne daanaka li ëpp ci penc Tayba yépp dañoo toppan ci gannaaw gannaawam di ko déglu hmm. bi mu décidé nag pour dem nag euh, jaayante ak Seexal Xadim eh, la ko yëgal ñoom ñëpp itam ñu ànd ak moom mu dem eh, jaayante ji ak Seexal Xadim ci jamono ji mu nekkee gànnaar bi mu jaayantee ak moom it ànd ak njabootu boppam gi mm, yàlla dogal e, mu jébbal leen sëriñ bi waaye xam nga seexal xadim e, doomi soxna yooyu nga xam ne yëpp tey dañoo yoraan daara di jàngale e, képp koo xam ne da nga ko jébbal sa doom ca yooyu jamono bu fekkee alxuraan ji noppeegut mm-hmm. da lay wax ne àndalaat ak moom comme xam ne daara nga yor ba alxuraan ja noppi bu alxuraan ja noppee te xam-xam ba noppi wutit dalay wax ne la àndaal moom ba mu noppi ci xam-xam bi nga indil ma ko nag ma yar ko kon doomam yam àndalan ña ca mokkalutoon ña ca toll woon ci jeexal alxuraan ak ña ca ba toll ci xam-xam yépp tam jébbal ko ko Sëriñ Tuubaa ko koo digalaat mu dem ba noppi ci ñoom ci yaar yi doog leen a ba mu ci noppee nag moo waral euh, mu daal di jël ki nga xam ne maanaa ku ci dul rek euh, ab taaw muy Serigne Dame Faty hmm. parce que jamono yooyu moom ma nga saalum moom it di àggale xam-xamam hmm. bi mu jibbisee it comme moo moo mag moo mag ci kër gi moom dafa toog kon di wettali way juróom hmm. waaye ñi ci des ñëpp muy sëriñ Mor Khary Sill ak sëriñ Mbaye Faty Codé nga xam ne ñoom Eh, ñoo soxna Marème Ball way juru sëñ Abdul Xudoos ak sëñ Modul Abib ak sëñ Mahmoudan ñoo bokkul lépp ñooy nijaay ñooy seen nijaay ñoom ñooñu ak sëriñ mu Amadou Zeynabu ak sëriñ Mor Jaara eh, ñoom la sëriñ bi jël ak sëriñ Cheikh jox sëriñ Cheikh Karim Bay ñoom la sëriñ bi jël yëbbal ko yëbbaleen sëriñ bi ci njaareem mm-hmm. da dégg may faral di wax eh, ñoom sëriñ bi def leen a joxoon wàccuwaay bu mag seen tarbiya la ca ëppan mooy bindal ko hmm. dañoo bokkit ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi tànnan ab lim la bu hmm. yaatu ci kër yi hmm. ci téere yi nga xam ne moom la sëriñ bi bind ci waxtu bi mu demee ci géej gi ak bi mu nekkee gànnaar surtout nag yi mu bind bi mu demee ci géej gi nga xam ne ci loxol boppam la ko bindan te ay ay téeméer la mm-hmm. ñoom ñooñu nag la ci wóolu woon bay bis bu nekk ñoom ak ñeneen mm-hmm. maanaam ñoom dañoo ñi ma doomi si mbir ne yii dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom la santan liggéey boobu mm-hmm. mbooloo lañu sëñ Mor Mbàkke ci la bokk sëñ Modu Mor Mbàmp la bokk sëñ Xëri Ñang mu Xëri Ñang ci la bokk euh, sëriñ Mbàkke Kanni Eh, ca la bokk sëñ mu war Modou Kan Mor war xa ca la bokk sëñ mm. Modou Jeng Wajje ca la bokk ak yeneen doomi soxna ak ak sëñ eh, Moussa Alima Guèye mm. ñooñu ay doomi soxna lañ yoo xam ne eh, sëriñ bi dafa leen a tànnan loolu mu bindan ci loxol boppam loxoom lu sell la mm-hmm. ñoom la daan def saa yu xëyee jël ay jimbilan jox leen wax leen waxtu woo xam ne nag bu nañ fexe ba buñ ca àggee na fekk ñu noppi delloosil ko mm-hmm. loole seen liggéey ba moo nu jotale ci xasiida yi ak mbindam sëriñ ndax fi mu toll nii tey hmm. li sëñ bi li muy bind li mu bari bari benn téere bu mat sëkk même ci kàggu yi pour nga gis benn téere bu mat sëkk bu xasiida hmm. wala téere xam-xam boo xam ne sëñ bee ko bind ah man de mosuma ko gis tey gisaguma hmm. eh, même ñi ma mag sax ñoo xam ne gis nañ ko ay këyit daal ngay gis benn kayit wala ñaar ñu ne la mbindum sëriñ bi moom ñaari kayit ñetti kayit ñeenti kayit waaye téereb lëm bu mat néew na te li mbind ay téeméer la kon lu nu ci jotale loolaa nu ci jotale muy loolee mu bindan ci loxol boppam moom da ko doon tëjaat ci ay gaal gannaaw ba na mu ko def boromam waaye lanu ca jotale moom mooy liggéey boobu mu doon sant ñii nga xam ne moom dañ ko doon moom moom lañ moom lañ ko sottil sëñ ma sàmba daa leen taxawu ak yeneen mag mm-hmm. léegi sëñ ñooñu nag bokkan ci ñooñu mu joxan eh, sëriñ miri eh, na joxan Cheikh Al Khadim njaareem bi ñu noppee nag ba dellu siwaat nag dafa daal di sanc nag beneen dëkk fekki fekki dëkk bi xumb na lool miri na mm-hmm. barke bi rëy na lool fekk sëriñ miri na jamono yooyu moo yore daara ji di jàngale nga xam ne wax nañu ne ah ah, ah maam suñ mbiri na waaw mi ngi feeñ moom mook sëñ bi daanaka magaate mi ngi feeñ mille huit cent cinquante cinq bu fekkee ne sëñ bi mille huit cent cinquante trois bi ñu wax wér na ñaari at la ko mage kon dafay mel ni moom ak maam alaaji malik si ñoo maase ndax maam alaaji malik mille wax kon sëñ mbiri moom boobu la feeñ Eh, léegi nag euh, waaye yàlla da ko dimbali woon lool parce que maanaam euh, mille huit cent cinquante cinq ba mille huit cent mille neuf cent quarante sept et quarante six ba mille neuf cent quarante six gudd na waxoon lool te mësta naag euh, wax yàlla fa tabarakallahu loolu moo tax sax yàlla jox ko njaboot bu takku hmm. eh, léegi njàngale ma daara wax nañ ne bu bu bu bu xasaa génn kii rek ba nekk ci penc mi fi muy jàngalee boo xoolee garab yi dëkk bi yépp garab goo xool da nga fa féem aw fas ndax doomi soxna yi nga xam ne tey dañoo dëkkan ci tund woowu yépp taxaw a dànd miili na mm-hmm. maanaam seeni fas la leen seeni waajur daan jox ñu ñu war ko di ñëw di sàkku si xam-xam bu ñuy ñëw na kenn ku ne da ngay yeew saw fas si garab ba tëral lu ba àggal dooga a dem nga xam ne daara yi ñi sàkku xam-xam ak ñi nga xam ne dañuy tarbiyewu ñaari daara yoo xam ne bokkul la ñiy tarbiyewu ñoom e, ak seen daara yi bopp mm-hmm. waaye ñiy sàkku xam-xam ak seen daara yi bopp mm-hmm. mu saytul ko boppam bi yàlla dogale nag njabootam googu nga xam ne ñoom la yabalan ci sëriñ bi te lu jiitu mu di leen yebal noppi na ci ñoom ci alxuraan ak xam-xam bi bi noppee ba tarbiyewu ba tarxiyewu ba dellu siwaat nag da cay jël ñaar e, muy sëriñ e, Mor Sill mhm. ak sëriñ Mbay Sill mhm. sañcal leen deux kilomètres ci mirin miri diggante miri na ak Tayba Dakar mhm. mu sañcal leen fi tudde dëkk ba Daaru Salaam muy foo xam ne nag fa la daaray xam-xam ja ak daaray alxuraan ja toxu mhm. ndax dafa tasanteeg sëriñ yi na mag gi ñëw nag mhm. te comme nag am na doom yu ko mën a wuuti ci loolu daaree alquran ja ak daaree xam-xam ja toxu foofu sëriñ Mor Xari mhm. yor daaree xam ja sëriñ Mbay rakkam yore daaree alquran ja diir boobu it mbooloo lu takku nag moom ci njabootu Mbàkke sut Daarul Mooti baree baree bari foofu rek jànge alquran ak xam-xam ci njabootu maam Cerno Birahim gi e, waaye njabootu sëñ Baara Mbàkke gi itam ñu bare bari comme sëñ Moodu Aysa mhm. ak sëñ Seex Coro ñooñ ñëpp foofa lañ leen joxe woon ñu doon fa jànge mhm. ak nag ku mel ne sëñ Mbàkke mhm. na fa ak ñu baree baree bari waa kër sëñ Moodu sëñ sëñ Seex Seynabu comme sëñ Mustafaa ñu bari jaar nañ fa waa Mbusoobe ñu baree bari jaar nañ fa ca ca ca ci daara yooyu ci diggante e, daaru salaam ak Mirina mhm. e, muy muy daara yu yéeme si Mahmoudan mi nga xam ne tey nga daanaka moo doon mhm. madrasa Cheikh Ibra Faati mu si waroon ko sof foofu jànge ci nijaayam yooyu mhm. e, la ci ëpp foofu ko jànge muy daara ju mag a mag loolu moo tax muy daara ju barkeel moo yaa ngi gis sëñ bi muy bi muy bi muy taalif mi bi muy martial suñ war xar yi moomu ci xam-xam baag mhm. euh, ak dëddu ga ak euh, taxawaay bi mu aman mhm. ci diine ak ci xam-xam muy doomi sëriñ Mirina euh, ci biir marché moo na naan balee tax sëriñ Touba ne waa tey ne waa Mbàkke jàngi leen mhm. madinata ilmin xam-xam ak barke mhm. xat bada mhm. mu ne balay tax sëriñ tuba ne waa mbàkke jàng leen mhm. madinata ilmin xam-xam ak barke xat badaa madina madina sill googu lay wax moo tax mu doon wax ne dëkku xam-xam la boo xam ne xam-xam bu ànd ak barke la mu ne moo tax mu daan soññi waa mbàkke ne leen ngeen jaar fa lu néew néew sàkk fa xam-xam ndax xam-xam bu bu fa waay jógee dana ànd ak barke loolu moo tax mu nekkan daara ju Eh, joo xam ne fa tabarakallahu mm-hmm. eh, maanaa daaray xam-xam la woon mm-hmm. eh, daaray alquran la woon nekk daaray tarbiya la woon mm-hmm. ñu baree baree bari tarbiya wu nañ fa bokk na ci daaray daaray tarbiya wu ja jawriñ yëpp mujjën ci daaray si mbir ni ja doon jàmbaar lool muy sëñ Masamba Gueye boole Gueye mii ñu xamoon ci Tuubaa ci diggante kër sëñ E, Mortala ak Mortada mhm. sëñ Mortala joxoon ko sëñ Fallu gannaaw bi mujj kër soxna moom yi nekkan ko sab xorom mhm. ma Samba Gueye mooy mooy way juróom mhm. ci jawriñu sëñ Mirina la ak e, ñeneen ñu ci daari tarbiya yu bari la amoon bi mu jaayante ak sëñ bi nag xam nga sëñ bi moom lu mu la fekkee lu nekk da koy ful waaw sëñ Tuubaa donc yi gën bari gën fulu e, tabarakalla yaatu lool nag daaray tarbiyewu yaatu ngeen dafa nangare mhm. eh, amaat yeneen daara même que am mu tombe ak lu yéeme moo xam ne loo xam ne ci may Serigne Touba yi mhm. mooy ak ak ak demoom ci Serigne ci dafa tombe mhm. eh, ak eh, rakkiteeñ tanoor mi sonalan seexi làmbaay yi rakkam bu jigéen soxna Awa Joor alburé ko yoroon mm-hmm. gàddaaye nag moom dem dooso ca ca ca ca mm-hmm. yàlla dogal bi alburé nelawee moom mu dellusi mm-hmm. tombe ak tentanur génn àdduna bàyyiwul doom ju mag ñu fal ko def ko reen mu nekk buuru làmbaay waaye mu dog fa diir bu gàtt gàddaay ñëw ci bawal su soriwut mirina diggante njaa ndindi ak mirina la eh, diggante njaarim ak mirina mu sanc fa kër Awa Joor mhm. dëkk boo xam ni ànd ak daanaka mbooloo mu jeex mu yaatu daal di jéblu ci sëñ mhm. walbati ko jox ko boppam mu tombee ak sëñ mbir na it mhm. booba période booba la rek moom jaayante ak Sëriñ nga xam ne fi ne tollu àllarba ba mu ko fa wutal euh, sëñ mbir na am fa daaray tarbiya wax nañu ne euh, maanaam la ca njëkk a ñore mooy addiye ji sëñ Touba sëñ mbiri na njëkk a jox Serigne Touba. Mm-hmm. nga xam ne kon loolu sëriñ di xoolal rek. Mm-hmm. kooku tey. Mm-hmm. Eh, teeñ ak barke baak ak dag yaag lam amoon lépp. mujj ci rakkam bu jigéen rakkam bu jigéen mujj nekk taalibe taalibe sëñ loolu xam nga lu yéeme la loo xam ne kon siñ mbiri na daal di koo xam ne fa tabaarakallaahu yàlla it dogal ko. Eh, daanaka askanu doom yi. boo dem rek fekk foofu sëtam. fii boo ñëwee boo demee Daarul Moxti mm-hmm. da fekk sëñ Abdul Kuddos sëñ Moodu Habib mm-hmm. ak sëñ Abdul Kuddos ak sëñ Mahmoudan soxna Marème Balla mm-hmm. waaye soxna soxna sëñ Koso Gànnaar ak ak sëñ Xaadim yi xalifa sëñ Moodu Balla tey ak ay rakk moom soxna Asta Saasum moom it nekk di doomi sëñ Mirina boo jàllee daa eh, daarul manaan kër sëñ Saxaw Balla soxna umul mi nga xam ne mook Cheikh Mamadou Bachir mhm. bu Seexal Xadim ñoo bokk soxna Fatima du maam ndax sëñ bi bii dem ci géej gi mhm. euh, maanaam sëñ bi dafa dafa joxoon ndigal euh, soxna Fatima du ko joxoon sëñ mbiri na mhm. euh, ba mu am ci ñaari ñaari bant mi soxna umul mi sëñ Seex Awa Balla yoroon moo moo jur soxna Nday Mbàkke bi sëñ Seex say yoroon ba maam say moomu am ceeg moom maam say soxna Marema magam soo ñëwee ci ba tey ci Darou Mouhty hmm. ba demee kër Sëñ Abdou Rahman eh, moom maam Thierno mi nekk dara soxna Anta Sill hmm. moom it rakki soxna Sassum eh, foofu la nekkan hmm. léegi boo ñëwee ci kër gu mag gi kër ma Mamadou Moustapha soxna Maar sil mi way jur sëñ Xaadim mi nekkan xale fi sax Moustapha suñ mbir naa ko jur waaw léegi boo demee kër maam Cheikh Anta Gaawaan moom itam soxna Marème Balla moomee mhm. eh, maana maana maana soxna Marème Balla moomee rekki soxna Marème Balla mhm. eh, moom itam eh, maam Cheikh Anta Gaawaan mhm. moo ko yoroon ba moom it am ci soxna Daba waaw soxna Daba Sëñ Abdu borom dër bi moo ko njëkk yor am ci sëñ Sidi ak rakkam gannaaw ba Sëñ Abdu Lahat yor ko <laughs> gis nga moom itam E, fa tabarakallahu e, moom it e, kii boo ñëwee boo ñëwee moom foo dem mhm. fekk fa ab sëtam boo ñëwee kër si waaw waaw ku barkeel daanaka daal mën nañoo wax ne yëpp kër si mhm. Sill mhm. mi nga xam ne mooy magi soxna umul moom lañ joxoon sama maam sëñ Omar Mbacke mu am ci soxna Mariamu ñu jox ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha ba mooy way juru sëriñ maam Thierno ak sëriñ Cheikh ak Basiru ak soxna Maymuna seenum jigéen kon loolu lépp wane wane rek eh, wax dëgg yàlla eh, taxawaayu eh, sëriñ Mirina ak yaatu gi nga xam ne ak njabootam yaatu na ko ba kër si moranta sël yi foo ci dem fekk fa ab sëtam waaye kër Seexal Xadim yi foo ca dem rek fekk fa ab sëtam eh, boo xam ne ci la bokk mm-hmm. xam nga sëñ Fàllu sëtub Abdu Xudoos la <laughs> euh, foo ci dem rek mm-hmm. foo ci dem maanaa ci ci ci kër yi maanaa da nga fa fekk tey mm-hmm. da tey lu bokk ci moom muy muy muy fépp rek kër sëñ Mbàkke Ibra ku ne Mbàkke Kajoor ku nekk da nga fa fekk muy siñ mbir ne mu nekk koo xam ne E, e, ku ku ku ku barkeel la daal mhm. e, ci wàllu gépp la tabarkalla allah sant nañu bu ah, baax ah, sëñ Xaadim ñi ngi sant bu baax a baax di rafet lu baax jotaay bi ndax sëriñ Medina mbiram dafa tàmbalee ci digganteem ak sëñ Mouhamed Tassali ak sëriñ Tayba Ahmadou Ndumbe Maar Sill mi nga xam ne moo jullee sëñ Mouhamed Tassali yaakaar naa ku delluwaat ci histoire di dégg waaraate woo mu waaraate woon keroog bi ñu dencee sëñ Mor ba pare soññaat jaami yàlla yi euh, delloo leen ci seen borom subhaanahu wa la kon sëriñ Médina silla mbiram digganteem ak sëñ Tuubaa dafa tàmmalee ci diggante sëñ sëñ euh, Mor ak sëñ Ahmadou Ndumbe Maar Sylla kon diggante bu yàgg la waaye itam boo delluwaatee ci ci ci ci jaar-jaaram dangay gis ne baax baaxuk sëñ Tuubaa gi da ko fee maanaam daa fekk moom mu ne ci baax ba tax mu tàbbi ci baaxu Sëñ Tuubaa waaye itam ku ku barkeel la ndax ñim fi lim ñëpp tey mënoo mënoo mënoo tudd lu Mbàkke ba mënoo tudd yoonu mu te doo doon tudd mënut a nekk kon mbiram lu lu barkeel la kon borom jagle la woon ci diggante ak Sëñ Tuubaa waaye itam ak barke mbiram mu barkeel mënut a weesu sëñ Tuubaa jël jox ba pare jëlaat ko am ca Mouhamadul Bachir mi nga xam ne doomi sëñ Tuubaa la ju ñëpp xam kon sëñ Medina Sylla mi ngi bokk ci ñi nga xam ne ay tànneef lañ woon waaye tam wane gi ñu di ko waxtaaniwaat lu war la lu war la ndax sëñ Tuubaa ñi àndoon ak moom ñëpp ay tànneef lañ koo ci jël rek mën naa mën naa yilif jamono waaye itam moom sëñ sëriñ euh, Medina Sylla borom alxuraan la ay tam boroom xam-xam la woon te itam sëñ Tuubaa mbiram géndut ñaar yooyu jàng ak jàngale loolu képp ci la nekkoon ak yar kon dañuy ñaan yàlla euh, taas ñu ci barkeem ba barke bi mu fi bàyyi ñu mën cee taas ba mën cee barkeeloo di ñaanal baax sëriñ Xaadim Sylla yi nga xam ne euh, ab sëtam la euh, bokk ci njabootam yàlla gën ko fee yàggal Euh, ba mu gën a wér ba li mu yéene liggéey Sëñ Tuubaa ci yoon ci wàllu xam-xam yàlla dimbale kàttanal ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee kon ñu ngi àndoon ak Sëñ Xaadim Sylla tey jii ci 18 eh, safar 18 kàngam fii ci Daaru Xudoos àndoon ak seen mbokkum taalibe taalibe borom gaawan Tamsir Gueye ànd ak itam mbokk taalibe yu baax yi ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM 99 point 0 kon ñu ngeen yàlla sëriñ bi nangul ñu ba li ñuy am yéene lépp mu nangu ko na mu gën a sell ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaatu llazi fi kulli bisarin wa fi safar